mbokk yi ñu déglu ak dinu taataane ci biir léb RMD TV naqar ak tiis la ñuy daal di dikkee ak yéen euh, Aïda Sow infirmerie suma assistante moom nag euh, dafa daal di daanu malaise daal di ñàkk bakkanam moom nag euh, ci ginnaaw mission bi nga xamante ni si doon na ko amal ci mission bi nga xamante ni doon na ko amal fële ca caravane Bassirou Diomaye Faye maanaam caravane de femmes de la coalition Diomaye président ñoom nag foofu la doon couverture di di lu di saytu li nga xam ni moom mooy seen wàllum euh, wér gi yaram moom Aida Sow nag euh, mën nañu jàpp ni coona bokk na ci li ko jàpp euh, ba mu daanu malaise daal di ñàkk bakkanam moom Aida Sow mile nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom daal di koy xaare aljana bu ñu jógee ca loolu dañuy jàll ci lu doy waar muy kalifon Sall ci ginnaaw bi mu tourné page ñëw rek daal ñëw ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Pastef moom nag mu ngay yàq lu mel ni Ketebe ki nga xamante ni si moom moo di Amadou Ba moom Khalifoun Sall nag dafa yëkkati ay kàddu rek di xamle nii li président Ousmane Sonko wax si Amadou Ba daf koy confirmer ndax moom Amadou Ba dafa yor ay kër yoo xam ni dafa teg ay nit ñu fay liggéeyee ba tax na nag muy wane ni sàcc la yow boobule xaalis fan la ko jëlee euh, yooyu les kàddu du suñ ay wax nag waaye kàddu yi ki nga xam ni moom moo di Khalifoun Sall euh, miile. parce que dafa am fu leen ay sàcc lañ dem leen rond-point case bi unité bi ci kaw télé bi la Amadou baa jënd ngan di terrain def ko immeuble def ko permanence fu mu jëlee xaalis boobu ku jël ngan di immeuble def ko permanence def fa ordinateur def climatiseur def lu ne di fa financer ay nit fan la jëlee moo moonin boobu Amadou Ba fan la dëkk ginnaaw pale présidentiel la dëkk fan lañ jëlee alal yooyu

parce que xaalis bu mu sàcc fii ak ay sët sëtaatam di ñëw dañuy dund si xaalis boobu ñun jamono jooju ñu ngi dund walaakaane ñu ngi dund galère. neexut a wax Sénégal la nekk Sénégal la nekk xool leen fii.